dal leen ak jàmm yéen a kaay yu bëri xëye tey wàccaayu élection présidentielle yu 2024 candidature coalition Benno Bokk Yaakaar ca la Quotidien xëy taxaw amal taxaw seetlu kay doon candidat Benno fa mu doon jege ñaale njiitu réew mi Macky Sall takkandeeram moom lay wër ci jamono ji moom njiitu réew mi fa mu doon koo xamante ne dina gis boppam dina gis boppam ci doxalinam ëllëg bu jiite réew mi képp ku mu mun a doon ci coalition Benno Bokk Yaakaar na mu fas yéene doxale njiitu réew Macky Sall dina ci ci yéen a quotidien di ñu xam lekk coalition Benno tey ji njiitu réew Macky dina diisoog ñoom yéen a kabi di le point actu di ñu xam lekk njiitu réew Macky Sall eh, ne ko xamante ne opposition bi soxla na ko waaye nag mouvance présidentielle bi eh, soxla nañ ko ci jamono ji kenn ku ne bëgg a dooleel eh, sa doole jëm ci élection présidentielle yi ñu tànnee njiitu réew yéen a kabi di yor yor Guinée ci jamono ji la mu tànn moom njiitu réew Macky Sall ne du ca doon candidat ci yooyu le woote bokk na ci ñàkk bokkam ci yooyu le élection présidentielle yu 2024 Euh, bu ñu deful ndànk mun na fee jaare tas tasar euh, lii di parti socialiste euh, ci ñàkk déggoo gi tàmbale am ci biir socialiste yi mu ngi ci yéen a bi di yor yor bi yéen a bi di le quotidien candidature bu présidentielle bi nga xamante ne njiitu réew Macky Sall doonatul kay dagaan baatu askan wi benno wut seen candidat yéen a cabinet am na nu mu yéexee rek mun naa gàllankoor coalition benno bokk yaakaar Nicolas Ndiaye bu LD jàpp ne te moo ne de mun nañoo am candidat gu gën njiitu réew mi Macky Sall mouvance euh, présidentielle bi kenn ci jegeñaale njiitu réew Macky Sall euh, Sori Kaba gannaaw bu mu fu yëkkate woon ay kaddu ne troisième mandat warta mun a ne ñu jëlee ko ci euh, postam gamu ne woon moom Sori Kaba fàttali ne jot na woy politique yi di sàmmonteeg seen i kaddu comme ni ko njiitu réew Macky Sall waxee bokk na ci jafe-jafe ci jamono ji mooy jotuñu woon a sóoraale numéro 2 kay toftalu ci njiitu réew Macky Sall jotutoon a am parti beeg na muy doxee loolee mun naa gàllankoor njiitu réew mi Macky élection présidentielle yi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci euh, Sori euh, Kaba yéen a di sursaane candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm Soxna Aïda Mbodj euh, fësal na programme am niki démb la doon amal meeting d'investiture ay Mbodj ne bu faloo dina suqali Sénégal ci anam yu bari lool te wute ci wàllu koom-koom ak leneen ak leneen bokk na ci ne àndul benn yoon ci tegum loxo ñi ñu duppee ay détenus politique nañ leen bàyyi ñu génn kaso yi ñibbiwaat seen kër Aïda Mbodj yemu ca dankafu na njiitu njiitu réew mi Macky Sall ca na muy noté Ousmane Sonko bu ko xañ candidature am ci élection présidentielle yu 2024 yéen a bi di le mandat ne bëgg na ca am mandat moom Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ne say bu faloo dina taxawu Sénégal ci xeex ndóol maanaam pauvreté ci Sénégal fexe ba joyantiwaat institution yi askan wi mun cee gis seen bopp mu ngi ci yéen a bi di le mandat ay kàddoom yeneen euh, ci l'évidence moom njiital gëm sa bopp euh, Bougane Gueye Dany sàkku ci njiitu mi Macky mu fexe ba libéré euh, ni politique yi ñi caabi féete ginnaaw ndax politique eh, njiital gëm sa bopp mu ca sàkku na ci njiitu réew Macky Sall mu organiser ay élection yu jaar ci yoon yoo xamante ne du am luñ cay naatable mu ngi ci yéen a caabi di eh, le mandat yéen a caabi di eh, turbine ne Bougane Gueye bëgg naa itamit fexe ba njiitu réew Macky Sall amal élection yu jaar ci yoon yéen a caabi ne keneen ku fas yéene dagaan baatu askan wi ci yooyu la woote di docteur Abdourahmane Diouf njiital awale mu ngi fàttali ne lu ko dalee atum ba tey Euh, Sénégal mosta tànn njiitu réew ci programme maanaam ci yaama neex rek la ñuy tànnee njiitu réew yi fi jot a jaar docteur Abdourahmane Diouf ne bëgg naa suqali Sénégal ci fànn yu bari lool te wute euh, turbine nag xëy dalal Souleymane Ndéné Ndiaye premier ministre woon ca nguruk soppi euh, jàpp ne dafa rafetul dafa jaaduwul ñu daganal candidature Khalifa Sall ak bu Karim Wade bëgg a nasaxal candidature bu Sonko na nañu bàyyi ñëpp doon candidat ci yooyu la wote doon lu soxal Souleymane Ndéné Ndiaye yéen a kii Abidou Walf Quotidien Alioune Sané bu mouvement Y'en a marre bu deful ndànk mun nañ ko xañ liberté provisoire bàyyi ndëgandiku gamu amoon mun nañ ko delloo kaso ci euh, ci lu gaaw euh, bu ñu sukkandikoo ci mouvement Y'en a marre mi xam le ne loole doon na doxalinu procureur ci jamono ji ci tànk yooye la taxaw ba tax na ñu taxaw tembe ne ñu seetaan ñuy singili ak itamit bu ndoxatal Alioune Sané mi jiite mouvement Y'en a marre euh, doon itamit ku don vice président bu F24 yéen a di les école njiitu réew Macky Sall campagne xat ngir waajal élection présidentielle yu 2024 doonu ci candidat waaye nag ma ngay ah, inauguré ay centième ah, bokk na ci AIBD terre ba yegg na fa doon lu mu jëm jot a jëmmal moom njiitu réew mi ah, Macky Sall le peuple quotidien ne bokk na ci njiitu réew Macky Sall fexe na ba itamit jëmmal terre bi train express régional jëlee na ko ca Diamniadio yegg na ba ca AIBD eh, foofee ci aéroport ba yéen a kii bi di le peuple quotidien moo ñu ko yëggee le soleil ne aérogare bu AIBD boobee eh, jot nañ ko inauguré jéego bu beneen la goo xamante ne jëm na ci wàllu terre bi eh, Zambie ak Uganda ci jamono ji eh, ñëw nañu Sénégal ngir mu a root see xam-xam ak roy ci Sénégal ci wàllu terre gi yéen a di Dakar Times ne as nag yëf yi xajam lool ci diggante Sénégal ak France bokk na ci wàllu rupture diplomatique ci lañ naroon a sóobu gannaaw ni France 24 jotee jëmmale li nga xamante ne ay kaddu Ousmane Sonko ni ko nguur gi gise eh, doon lu metti lool eh, kii di maître Moussa Bocar Thiam jawriñ gi ñu dénk wàllu eh, communication direct news di ñu xam ne que CEDEAO bokk na ci waxtaanee mbirum courant fii ci Sénégal lu toll ci fukki réew ñaar seq nañ ko njiital Sénélec Pape Demba bi tey jàpp ne jéegagul yaatu la projet la goo xamante ne dina gën a ñoŋal Sénégal ci wàllu courant. yéen kaabi di suñu làmb xëy géewal Ama Balde ma ngay waajal kombaam digganteem mag Gris Bordeaux ne komba googe moo ko ñor waxatul lu jëm kombaam digganteem euh, ak Modou Lo Ama Balde ne pare na ngir euh, bëreek euh, Gris te bu ca jógee pare na itamit ngir tàllal loxo Tapha Tine fan ci weeru août gi ñu ne ca la ñu nar a sargal Ama Balde ca pikin suñu làmb moo ñu ko yeggee yéen kaabidi suñu làmb moo ñu ko dégtal l'info moom xëyee néegu sëy yi am na ñuy def seen kéemtalaay kattan ngir. neexal seen néegu sëy di jëfandikoo ay euh, produit yoo xamante ne ay produits aphrodisiaque ngir gën a dooleel euh, seen néegu sëy yenn cabinet produit yooyu le am na ñu bari ñoo xamante ne yiteewu nañ ko ci jamono ji euh, saay bu guddi xaajee am na ñoo xamant ñu ngi koy jëfandikoo ci anam yu dëppoo ak yoon docteur ñas ne yooyu le xeetu produit di aphrodisiaque nañ koy jëfandikoo tàmbale naa jur loraange ci askan wi ndax lañuy ñuy sëf ci xol ya duñ ko. ay xibaar yu